mooy xeex bi am ci opposition bi seen meeting ba parce que bu nu xoolee bu baax pourquoi ma naan épiphénomène la soo xoolee longooru meeting bi ak coow bi am ci biir meeting bi coow bi benn moment bu ndaw la par rapport ak li ñu fa wax yëpp ak taxawaay bi ñu fa am. mais comme coow moo tas meeting bi. coow baa tas meeting bi mais boo xoolee li am yëpp quatre-vingt-dix pour cent du temps. man mën naa ne quatre-vingt-dix-neuf pour cent du temps meeting bi la mobilisation bi loolu mu ëpp solo mais comme je dis rek. avec les meilleures intentions du monde nit ki mën nga def lu baax a baax a baax mais il suffit benn épiphénomène benn phénomène bu ndaw buy ñëw yàq lépp li nga def moo tax ñu taxaw si loolu mais tamit c'est normal ñu taxaw si loolu mais waruñu fàtte din fa wax yëpp ñi fa taxaw ak liggéey bi nu fa def parce que tamit politique noonu la demee am na ñoo xam ne nañ leen di fay sax ku am habitude di dem ci ay meeting politique ay réunion politique même dans les waxuma la sax taxawu ak Benno wala ak ay ak euh, Sonko non au delà même de ça da ngay dem dans chaque part dans tous les partis politiques day am yenn saa yi ñu nuy fay ñoo xam ne ñu naan dama lay fay rek pour nga dem tas réunion bi. Mm-hmm. xam naa décision bu fa génnee du ma arrangé. fexal ba réunion bi tas. oui mu créé benn mës naa assister ay yenn réunion yoo xam ne nga gis kenn ñëw di créer benn problème nga ne mais kii. fu mu jógee fu mu problème fu mu jógee amul problème mais foofu moom parce que nañ ko fay ne ko yàqal. donc yàq boobu effectivement bu nu yeewoo loolu la ñuy téye loolu mooy première